Alxaaji Mbeng Diop ak Mame Ndokh TV Mouhamadou Diagne Sy Mbeng le premier magistrat de la ville de Tivaouane liggéeyu Cheikh Seydil xaaj Malick bi Mbeng Mboor jàmbaar nga ci 10 millions de francs du xaalis bu ndaw boo ko yëkkatee def ko ci liggéey Seydil Hadji Malick bi liñ lay wax mooy bàyyi na la ak Cheikh Seydil Hadji Malick yàlla ko yàlla ful def ko ay xéewal sotti ko ci sa njaboot sotti ko ci sa famille sotti ko tabaarakallahu ci lépp loo jub yàlla ko yàlla ful def ko ay xéewal ci barke alxuraan yàlla bu la kenn ëppale ci Cheikh Seydil Hadji Malick Demba jóob si borom sabadoor bi taalibe Serigne Mansour si borom daara ji yow ba nga dalee jëf ci Tiwaawan ak léegi ëpp na 45 ans bëgg Seydil Hadji Malick si bëgg seex Seydi Aboubacar Sy la fi indi 500 millions 1000 tonnes de ciment ak ya ca topp yëpp tabarkàlla Diop bu ñu ko bëggee lim duñ fi jóg yàlla ko yàlla sotti ay xéewal jëf ji nga jëf ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick defal la ko ay xéewal sotti ko ci sa njaboot ak ku tax ci yow yàlla yàlla guddal sa fan jërëjëf Diop asalaamaaleykum Abdoulaye Ndiaye Ngalgou alxaaji Mbeg Diop ak Mame Ndokh TV taalibe Cheikh Seydil Hadji Malick liggéey Cheikh Seydil Hadji Malick bi jàmbaar nga ci Ndiaye kenn mënu ci dégg na li nga ci def yaa bëggul ko wax ca kaw waaye yàlla dégg na ko yonent bi dégg na ko Cheikh Seydil Hadji Malick mi ngi defal dégg na ko loo ci def yàlla ko yalla ful soppi ko ay xéewal sotti ko ci sa njaboot sotti ko ci sa ay wéyjur tabarakallahu yàlla xaral àddina Ndiaye yàlla yàlla guddal sa fan Abdou Aziz Ala Ndiaye taalibe Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine bi 250 millions ci biir jumaay Cheikh Seydil Hadji Malick si jekk na ni bakkan ci kanam l'histoire se répète encore une fois sa jëf yi Mame Ali ma jigéen jë moom nga jëf na mu daan defal Cheikh Seydi Aboubacar Sy sa baayaale daan ko defal sa turandoo sa sëriñ ba sëriñ Abdoul Aziz Al Amine loolu nga boole yëpp téeg sa loxo yaak njabootu góor gi Alla Ndiaye tabarkalla yàlla ko yàlla na soppi ay xéewal sotti ko ci yow ci barki yonent bi yaak sa rak Baye Ndiaye yàlla gudd fan ci barki yonent bi